Good. ولدت خديما بالابتداء محمدا عليه سلام الله ما زال لي ولدت خديما بالابتداء وسيلتي عليه سلام الله عن المصطفى هيبتي الدار حساب نفى إلهي لخير كل أمن ليس يضرب أبى الله إلا سيدا بهم وقد دوبوا الكفار والكل جزوا وزاد على الله

الحساب من أبس لقابا لمولاي وهده قديما لمن فيك لنزل نزفت بناء الميت بالحق مانعا لبرد ولا خلق ولا نويت دوام الذكر والسر حالما لخير ولا لمن وسيد خليل حبيب ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو ساكر جواد كريم للمكارم يوسف نقي تقي صالح وهو مسلم وزير ممن لله في العبد يوسف نبي أديب ذو حياء

نجيب مسرسب مزيع ملاذ وما نسيب حسيب ذو هدايا مقدم هو الناس والنساء نبي له زان عزيم مبين هو المصطفى ak bu accès fii nu ñuy liggéeyee plastique bi am na ci une partie boo xam ne nag ñun suñu bopp dañ koy liggéey muy ay plaques yu ngi leen doon wax loo xam ne dañ ci nekk ci benn liggéeyu recherche bu am solo bu ñuy defal ñun suñu bopp pour bëgg a installer lu ñuy wax la menuiserie plastique am ci benn type de machine boo xam ne ah li ñuy wax ne yàlla de moo dogal de euh, yéen ngeen ñëw gis ko mais machine la boo xam ne ministère de l'environnement sax gisagu ko ndaxte dafa am lu ñuy tuddee secret industriel muy machine bo xam pratiquement ñun ñoko fi def muy benn machine bu yam bo xam test yi ñuy def ak aussi jël plaque yi yobbu ko ci ay laboratoire pour gaay xol euh est-ce que du am jeexintal ci dundu nit ak yoy yep ci liggéey bobu lañu nekk lool tamit aussi nit ku nekk ak chance am dinañ leen ko mëna wan ngeen gis ko la ca dess nak moy plastique bi liggéey fi bu fi juggé fa muy dem fofu tamit ci seen programme bind ngeen ko ci ne di ngeen dem sympa maa ngi waxtaan ak directeur bi tay rek may wax ne ma effectivement war ngeen fa ñew donc xeyna sax bu yalla dogalé peut-être que man aussi ma ma gunge ci ah inshallah allah pour ngeen xam deug deug aussi processus bi yëpp naka lay tëddee. ñun nak biñu démarré ba 2012 yalla dogal ñu commencé waxtaan ak ak employé di mag di mag ba vraiment 2015 presque ci gàttal diggante 2010 2015 mën nañu wax ne lépp luñ doon def multiplier nañ ko macha par 10 ñi fi doon liggéey yokk nañu tonnage bi ñu doon def toll na ci presque 100 tonnes loolu tax nag aussi bi loi plastique bi ñëwee 2015 ñu créé benn réseau de collecte tuddee ko Rekiplast di tabax ay kiosque di ko teg ci gox yeeg goxaat yi pour di mën a récupérer plastique bi ngir mu ñëw dugg fii nii suñu usine bu ngeen xoolee tey ñëw ngeen mais. Euh, dañuy wax dëkk bi dafa plastik plastique mais ñun tay quantité yi ñu soxla amaguñ ko ça veut dire que tay su ngeen xolé personnel bu réduit mo fi nek tellement que quantité bi ñu soxla pratiquement amuñu ko sax pour dem rythme bi nga xamné ne rythme boobu mom lañu wara démé dëgg-dëgg alors que ñu ngi wax ne dëkk bi Sénégal dafa bari plastique lool moy wone ne liggéey quand même amna té liggéey mu ngi suñu mu ngi suñu mu ngi suñu kanam euh, fi nak <coughs> ci walu évolution ci biti bu ngeen génnee li tax site bi nekk site boo xam ne dañ fay war a jóge moo tax ñu wàññi fi lépp luy investissement dañ ko ci site bi parce que li tax ñu def bâtiment bi maa ngi leen wax fee rek la mbir mi yeboon fii 1200 mètres carrés la yoo xam ne jënd terrain bi ñoo ko jënd ñun bâtiment bi ñun ñoo tabax en 2015 fii ngeen gis ñu stocké fi matière bi terrain la boo xam ne ki ñu jaay fii moo ko daf ñu ko pour que au moins matières yi ni muy ñëwee problème mu espace dëgg dëgg dëgg la ñu am depuis 2015 dañu am problème mu espace parce que bi ñu njëkkee def suñu benn campagne de collecte bi camions yu ñëwee dugg si fii ci usine bi ci la ñu xam ne nag dañ doon am problème léeg-léeg stockage bi da doon nekkee ba nga xam ne nit ñi sax duñu mën a am pratiquement fu ñu jaar parce que plastique nag dafa mën a jël volume dafa mën a jël place parce dafa mën a yaatu bon loolu tax. Euh, ñu avec le ministère de l'environnement, je parle sous le contrôle de de la DREC Le ministère de l'environnement, le code code de l'environnement, depuis 2001 il wax dit qu'il koo avait dafa tabax avant 2001 Donc mënoo ñëw rek tëj usine par rapport au code de l'environnement. parce que la loi mënul pas lu rétroactive donc nous avons créé avant la loi bi di ñëw ñooñ dañ leen audit environnemental. ñun nag fii dañ fi def benn audit environnemental boo xam ne audit boobu moo tax ñu tabax bâtiment bi parce que audit bi dañu tegoon ay charte yoo xam ne dañu ñuy wax tànk charte yooyu même bu dee da ngeen di toxu il faut ngeen defar fii defar boo xam ne ñi fiy liggéey quand même dinañu mën a liggéey ci ay conditions yoo xam ne ay conditions yu minimum yu normal la su ko defee ñu mën leen jox seen cutis environnemental mais jox leen délai nag pour que ngeen waajal seen toxu parce que nit ñi ndar képp nañ leen fii te fii biñ fiy ñëw. mën nañ wax ne courant bi sax usine bii moo ko fi indi courant bi moo fi indi usine bi moo fi indi courant bi ñëpp ñëw dëkk si te bu ñëpp dëkk see aussi même courant bi ñuy jot tey doy bi mu war a doy dëgg defu ko ñun fin de ligne lañ nekk c'est-à-dire que guddi gi léeg-léeg dañuy am problème mu am suffisament de courant intensité courant bi du normal lii nag li tax ma di ko wax mooy bu ngeen demee bay samp usine moom c'est des choses yoo xam ne yuy jar a bàyyi xel la. maanaam espace foo mënee am 5000 5000 mètres carrés boo fa amee un hectare jëlal parce que stockage bi dafay metti mbirum courant tamit lu jar a bàyyi xel la parce que usine aussi tamit courant moo koy doxal ñaar yooyu am nañu solo ak ndox parce que mënoo def recyclage te amuloo ndox fii biñ fi ñëwee ñun euh, di di liggéey gis nañ ne comme am nañu problème mu espace fii ñu luwee ko léeg-léeg bu ñu amee ay déchets parce que ñun bu ñu liggéeyee lu toll ki cent tonnes ñun suñu jëm bopp nañ am presque dix ton de déchets yoo xam ne foog ñu koy teg léeg ñu koy récupérer di ko tuuri ji li tax fii bëri ay déchets fi mu nekk nii mooy dañuy waxtaan ak Sococim nga xam ne lii nekk déchet nekk ay matières yoo xam ne ñun mënuñu ko jëfandikoo léegi ñun dañ koy rebroyer waat di ko joxaat Sococim parce que buñ ko delloo tey ci mbëbës ba wala ki décharge bi gars yi dañ ñu koy indilaat. dañ ñu koy jaayaat kon plus que ñuy dem plus que taux de déchet bi ñuy am di jóge 3 di dem 7 di dem ba 10 nangam ak nangam day bari motax pour wàññi ko loolu sant la aussi tamit par rapport ak sukosim li nga xamné permettre nañu ko mu don ay études yu yu yu yu metti nak yo xamné tay ñom accepter nañu ko ba tay fi mu nekk ni quantité yu am solo ñom soxlo nañ ko ci pour suñu déchets yi nga xamné dinañ ko fi jëlé euh usine bi nak ni la tëddee bi ministère de l'environnement ñëwee daf ñu wax nañu liggéey bi waratul dem di dellu si waat bu xasee tàmbalee benn côté dañ ko war a tracé noo xam ne au fait amul dellu si point de retour donc moo tax fii nekk zone de stockage bi nga xam ne su matière bi ñëwee day agsi fii fii nekk atelier de tri bi fii su nekkee atelier de tri bi tri bi mooy lépp loo xam ne dañ koy séparer dinañu jug après dem Euh, xool ko ni nit ñi di liggéeyee fële ne le foofu la ñuy séparer plastique bi comme ni mu ko doon waxee par type et par couleur maanaam type bii bu dee PP la bii bu dee PHD la wala bii bu dee PP PET euh, e la ak yooyu yëpp foofu lañ koy foofu lañ koy xoolee bu ñu paree foofu nag am na ci une partie buy ñëw nii parce que dafa war a dugg ci fañ koy broyer buñ ko broyer ba noppi dañ koy war a tamiser pour lépp luy. suuf wala lépp luy kayit wala lépp luy feer mën a dañ bañ a ànd ak matière bi suñ ci paree yóbbu ko ci fiñ koy raxasee buñ ko raxasee ba noppi dañ koy weer ñun dañuy weer ak le soleil suñ ci paree tamise waat ko tamisage final benn parti bi dem noonu beneen parti bi euh, machine yi nekkoon fii daf fi jóge dem ki suñu site bu bees bi machine yooyu moo koy extruder comme li ma leen doon wan maanaam li koy def sous forme def fil après daggaat ko mu nekk granulé ñaari type de matière yooyu moom la ñuy def fii pratiquement ci usine bi plus nouvelle activité bi nga xam ne moom lañ fi installé muy système de thermocompression bi ak machine bu bees bii def au fait ay planches loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def fii nii au niveau de au niveau de Proplast euh, léegi nag euh, ci wàllu ndox mi dañu indépendant ci ndox mooy dañu am suñu propre forage nekkuñu ak SDE. parce que li ngay consommer ci ndox aussi recyclage bari na trop te coût yi comme dafa metti budé da ngay jënd ndox mom dina dina dina jafé trop nga génn ci loolu mom pour que ma tel len ko wax suñu site bu bes bi tamit aussi dañu indépendant en eau dañu tabax carrément suñu propre forage nga xamné ne ndox moom duñ ko jënd benen bi ki top aussi muy point bo xamné point bu am solo la moy li ngay dépenser li ngay consommer ci ndox bari na bari bo xamné aussi tamit fok environnement laaj la ndox mom noo koy def ñun capacité de stockage yu 96 mètres cubes la ñu am d'eau fini nii boo ne ci suuf yëpp boo ko xoolee gis dal la mais ci suuf yëpp dañ ko def ay puits yoo xam ne pour stocker eau bi nga xam ne day jóge ci machine à laver bi te li ñuy dépenser tamit aussi ci oto yi fiy ñëw di récupérer au fait euh, une partie ndox mi parce que am na système de décontamination loolu tamit coût la

dañ ci prévoir pont bascule aussi parce que bo amul pont bascule ci usine de recyclage li ngay am ci ay perte aussi tamit dina bëri te li ngay perte ci temps dina bëri parce que ñun on perd beaucoup de temps sur le pesage parce que soit fañu ñu matière bi fofu lañ ñuy waxé quantité yi ñu valider ko jaar ci pont bascule bu ñëwaatee fi ñun temps bi ñuy tok diko peser waat ak suñu équipe bi pour mu leer nañu né li lañu ñu ci usine bi ça prend beaucoup de temps donc bokk na ci suñu projet de développement manquement yooyu nga xam ne am nañ ko ñu jéem ko saafara aussi tamit pour augmenter euh, suñu rentabilité pour mën a gën a aussi am marge bénéficiaire bu ñuy permettre ñu mën a jëm ca ca kanam donc lii mooy grosso modo daal euh, Proplast usine bi ci ci ci gàttal. pour wane ni effectivement ici ñu ngi fi def lii ñu xool aussi nu ñuy lëkkale ñun en tant que service technique ak yéen. fu ñu jëmee mbir mi parce que mbir mu mu am solo la ci ñun moo tax ma doon préféré xëy na sëñ moor moo tax ma ñëw toogi nii pour ba leen a jël di doon bàyyi ba mbir mi kii ma xam exactement waaw mais jàppale ne lu ñuy lu ñuy eggale ci kaw la ndax lii moom dafa nekk tey jii au kër de notre dispositif ndax dégg ngeen coow li yëpp xanq rek madame mi ngi may attaqué ci ci mbir moom waaye yaakaar naa ni bon pour le moment naa yemale fii mbir mi Ok, ok, Inch'Allah. tani mom lañu vert emploi vert ak le numérique peut-être ñu nous xamuñu lolu motax sax suñu implantation bañ ko un peu partout dans les 45 départements yi nekk ci Sénégal yépp euh, mission locale pour permettre len en fait ñu faciliter l'accès l'accès euh, à l'emploi vert ak numérique mais également accès par rapport au financement. C'est ça. Quand on a invité par rapport ak euh, le programme là on a senti que en fait dañ doon gaspiller euh, ordures yi dañ gaspillé gaspiller aussi plastique yi mais xamuñu une importance mais au fond mais quand on fait ba la formation on était satisfait carrément on était satisfait te gis nañ bi en fait dinañu pousser à ce que les gens qui vont venir au niveau de la direction de l'emploi ñun tamit ñu xool lan la ñu mën a liggéeyee ak lëkkaloo ak ProPlace nga xam ne moom it dina leen mën a jàppale mais également aussi ñu gën a dëgëral suñu partenariat ak GGA parce que GGA vraiment initiative bu mu def nii def naa dina ko gën a yaatal te gis naa ni aussi dina permettre aussi nit ñi mbari di doon sànni Touba nga xam ne mbalit fépp mbalit la fépp mbalit la dinañ xam ne maintenant nan la ñuy def ba conserver ko mu amul nit ñi njëriñ. ak ñu koy déggee loolu mooy tax mu amal leen njëriñ parce que nit ñi bu ñu jàppee ne plastique bi mënuñu koo jëfandikoo waat jafe-jafe la suñ gëmee ne mënuñ koo jëfandikoo waat nag ñun jàpp nañ ni une fois ñu jàpp ni aussi mun na indi koom-koom non seulement problème emploi yi ñu am ak ci wàllu problème transformation yi ñu am dina réglé wu. parce que damay wax toujours Sénégal suñu problème mooy lu ñu transformé et puis duñ transformé ak ay unité légère maanaam unité yo xamee ne bi ni tay lu fay nek ay xalé ci bir Touba wara am luñu japp jàpp bëgg li jaay wala di transport lolu mënut a nekk il faut ñu transformer té li fay dugg aussi bëri na ci ay matières premières bokku na ci matières yi nga xamni dañ leen wara recycler nga xamni ne mën nañ ci sukkandiku pour def lu bari motax tax li wax sax amna solo néna na li ñu intéressé ci Touba moy lañ fay waajee def ci transformation ñom ñu ñëw duggal ci sen loxo kon tamit ñi nga xamne tamit Touba lañ euh wala dëkk yu melni Touba euh wara mëna a dugg ci transformation bi parce que légui aduna bi yépp loolu moko développer ndox mi dañ koy transformer place bi dañ koy transformer fer bi bois bi keuyit yi euh lepp dañ koy transformer té li ñuy consommé plus muy gëna a bëri plus transformation bi di gëna am doole plus muy gëna indi ay am-am ci suñu biir réew té loolu am solo la donc di rafetlu ànd bi. di wax ñu fekk ci fii que ni projet bi am na solo trop dinañu may ñun aussi ci sensibilisation bi ñu gën a am ay jumtuwaay parce que di wax nit ki rek mun na la indil alal te munoo koo wan nan lay def ba indil ko alal loolu tam day nekk jafe-jafe xëy na li ñuy jëlee fii ci ay image ak li ñuy jëlee fii ci xam-xam li nañu may ñu gën a mun a expliquer nit ñi que ni soxla sax ngay dem ba koy transformé bu xasee ba nekk matière rek comme ni nga ko waxee soo tamee pare lii mun nga koo jaay lii mun nga yokk. niveau de transformation bi loolu aussi ay niveau la xëy na ñu nekk ci dëkk ba aussi mën nañ ko yóbbu ba benn niveau bi ñu indi ko ci yéen ngeen yóbbu ko ci beneen niveau bi nga xam ne ñu koy jënd duñ ci sonn parce que pour ñun industrie chaîne la ku ci nekk am na loo ci war a def jëmale ko ci ndaw si nga xam ne mooy bale ëtt bi di dagale plastique bi ba ci ki nga xam ne moo koy jëfandikoo waat comme siège bi ñu toog nii donc loolu lañ ci bëggoon sànni di rafet rafetlu trop liggéey bi di wax ni ñi ngi ci am cawarte ak engagement pour suivre formation bi pour ëllëg aussi ñu mun koy jottali ba nga xam ne nit ñi nañ ko mun a jot xam ne lii njariñ kese lay doon parce que la waaj a def fële aussi ñu bëri ñu ci am ay ñenn ñi ngi naan lan la war a doon lan la war a produire fan la war a yam ñenn ñoom yaakaar nañ ne boo joxee plastique bi rek nekk na chaise léegi wala nekk na leneen léegi alors que am na ay am na fu mu war a jaar fu bëri ñoom bu ñu ko xamee dina gën a leer dina tax aussi nit ñi bañ a jàpp dañuy dig rek mais li leen di dafa am ay anam yu mu war a jaar loolu lu ci am solo la li nga wax tam ci type de plastique yi lu am solo la parce que dañ ko doon dégg mais amuñu ci woon fële boo xool mbuus yi ñuy naanee ndox moo ci gën a bëri fii bi ma ñëwee li ma fi gis daanaka ñi gën a dëgër la kon tamit il faut ñu wax nit ñi ba mu gën a leer discours bu leeree rek nit ñi nañ ci adhéré te ëllëg nañ am amal njëriñ boo xamee ne bi nii xëy na duñ ci am mbetteel loolu laa ci bëggoon sànni wa salaam. lay félicité bu baax a baax parce que sànq léegi maa ngi xool jigéen ñi heureusement bi nga ko waxee bi nga waxee euh, seen euh, kii bi nu mu tuddati i presse bi et tout ça am na ñoo xam ne dañuy liggéeyloo jigéen heure wàcc jot rek ñu leen dara ñu dem sans assurer leen dara. té gis na protection bi ñu sank sànq ñom lay xol je ne sais pas ba xam yaa liggéey ak sadaf bu Thiès bi wala det. Ya, un centre départemental ici au niveau de Thiès bi fajjaase jiite xam dina mëna dimbali jigéen ñi ci yenn problème yi mais en tout cas li defe naa bu fi suñu bëtt man personnellement duma xam lu melni ni pour man dama defoon jigéen dañoo yam rek ki ramasser ñeu jaay leen dem seen yoon mais da nga créer emploi te ñii heure bi ñu fi nekk nii seen moroom yaa ngi seen kër yi xëy na añ nañ ba pare di nelaw mais ñoom ñii ku leen jàppale yàlla nga jàppale parce que ay ay njaboot la bàyyi seen kër heure bii seen doom yaa ngi école ñu si bëri ñu war leen a xool mais dañu ñëw wuti jàppale seen borom kër yi kon ku jàppale jigéen toute une yi nga jàppale kon loolu ñu ngi ci ciy bu baax a baax. tegal ci yoon la mel ne li nga doon jàngale. li nga dund nga doon jàngale moo tax mu neexoon a dégg ci ñi ko doon ñi ko doon suivre euh, ndax euh, da ko théoriser ba nga pratiquer ko tàmbali à zéro ba àgg ci fenn ba noppi boole koog say innovation loolu nag dañuy motiver ñu xam ne nii ñi ko sonn germe doxe rek loolu moo ci am solo mbir mu ci nekk pas-pas rek a ko yor euh, lu pas-pas génn dara am dara nekkutu kon nag loolu gis nañ ci lu dal xel la loo xam ne nii am na ci yoon woo xam ne tege tege nañ ci buñ doon làmbatu it fi mu nekk nii yaakaar na ay bunta ngi tàmbalee ubbi ko ci ñun pour ñu xam ne lii ñu doon wër di ko bëgg am na ci yoon yoo xam ne buñ ko wàccul mën nañoo àgg fañ jëm ca mën na am njariñ euh, fu mel ne Touba nag xëy na buñ ko gënee comprendre dana dana gën a jéggi day ndax daanaka marché la marché la parce que am na consommateur macha allah kon nag loolu fu mu am fu ci nekk tey ñëpp daw daw nañ jëm fa can ña daw jëm fa yi ñu ci bëree bëri daanaka jàppuñ ci dara euh, doyloo sëriñ bi rek moo leen fa yóbbu kon nag yu mel nii nag daanaka euh, buñ koy nos ci titeli jijaay ñu am seen programme ñëw indi ko fa tànn fa bi ñëwee UCG mi nga xam ne moo fa nekkoon di leen jàppale ba léegi ñu ànd ak commune bi ci ndigalu monsieur le maire Abdoulaye di ci dox ba agsi ci fii wax dëgg yàlla dox bi lu mu jeex-jeex rek am na luñ ci xam visite bi nag day am lu baree bari lu muy doon dana gën a nit ki lim doon xam naan nan lañ koy mën a defee dana xam ne ni lu manu la euh, te it euh, ni ma ko xelal moo gis nañ lu dal xel laal gis nañ lu dal xel loo xam ne incha allah yaakaar naa buntu ubbi na yu bëree bëri yoo xam ne nii manees na cee jaar ba ca incha allah nii ñu ko tàmbalee noonu lañ koy fas yéene jéem a continuer eh, ndax it eh, eh, li nga daj ak li ngay làmbatu dafa bokk nag doo làmb ba daj jéggi bàyyi ko naan damay làmb leneen loolu day day kii kon kon loolu incha allah danañ ci taxaw xëy na bu ñu defee yeneen visite yi beneen bi ci desit mooy ubbiku gi nga xam ne ni ubbiku nga. njëriñu Sénégal parce que yu mel nii rek lañ mën di wane en exemple. ndax parce que fii dañuy dañu bëgg di mettre en exemple ñi nga xam ne ay waxkat lañu rek kenn ku nekk naan nangam. tracé àddina ba mu sotti mooy la sëñ Saliou danga xam ne naan xel mën naa toog ci barab wër àddina ba jot ca du sottal dara. waan tànk ci yoon rek lay teg. kon loolu mooy li am solo fi mu nekk nag Sénégal day mel ne foofu la ñu toll dañuy jël seen xel di rëdd rëdd ba kenn ku ci nekk. maanaam da ngay jàpp ne rek maanaam boo ko joxante ak baguette de magie lay daal di defal li mu war a defal yëpp lépp daal di sotti moo tax mu doon wax ne xel man naa wër xaj àddina ci benn saa wante du sottal dara wante tànk nag bu tegee ci yoon rek dana àgg kon nag loolu loolu loolu lañ fi gis tànk bu tegee ci yoon tàmbali ca la nga man nga fekk leen fa nga leen fekk bu leen ca jàppale ca bàyyi leen ca xel ca la ngeen jàppale dëgg yàlla loolu <laughs> loolu moom waxuma dara Euh, ndax yu mel nii rek buñ ko defee problème mu famille rek euh, séentu ca la ca nit ñay gañe bu sottee rek ñëppay gañe waaw nag mën nga séntu sax li ngay am dem ba caag mu torfati ca daanaka loolu ci ca loolu lañ gis nag. gis ni yow. looy am ñoom ñii nga fekk na nga ko ànd ak ñoom te yaa ngi leen di bàyyi xel ñuy yéen ndax day mel ni sax ñoom ñu réussir yow moo la gënal nga réussir loolu nag lu am solo la loolu dafa am yu bare bari yu ñu fi jàngat yoo xam ne nii lu lu lu mat a génne la lu mat a xam la lu mat a dox la waaye nag comme donga yoon wi waaxul bañ a gestu rek ca ca ca ca xam ne euh, li fi ak yaa ngi tegee ci yoon woowu di continuer rek la ca kanam moo ëpp fopp ci li ngay weesu ndax suñu boroom moom euh, liggéey boo ko joxee àqam mën na laa am résultat wante nag barkeel moo ëpp solo te suñu bi laa wax naan nawet maanaam ay xol yu nangu moo moo moo gën nawet bu barkeel <laughs> nawet bu nangu ndax daanaka euh, ni ngeen boolee seeni xol di di continuer di expérimenter ak na nga koy joxe ci laa biir ci ci laaj yi ci kenn ku nekk la nga bëgg la ñu ngi lay xamal ne commune de Touba la tàll nañ lay loxo danañ kon ne incha allah ci lancé bi nga xam ci lañ lépp luñ ci mën a ànd rek danañ ci am ndax lañ bëgg mooy njëriñu askan bi rek ñu parce que nag loo xam ne environnement bi da ciy am solo ñu ngi koy defee loolu yaakaar naa la mu ci kon sant daal moo ci nekk ak it bi la wax ne daal moom xëy na ñëwoon nga am loo fa doon joxe di ko wan wante biñ ñëwee ci terrain wan nañu li nga doon wax lii moo tax nga ko doon waxee ni nga ko doon waxee rek lii moo tax it nopp yi ko doon dégg yëpp mu mën a dugg ci seen xel mën a dugg seen xol kon ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant ñëpp ñu ngi leen di ya sayyid al wara alayka salaamullah لبس ثياب المجد الحمد والبل والمنى وفيك من الأقلام لقيت من الأداء ما دلنا على أنك الليل لمن جاء يبغي منك نيلا وهدى متى يا بريدا لمن قالوا جنون لكم ذو تجرب عذاب ذليل لك دار أبكي من إلهي سلام عليك ما نبي على الله من بالمصطفى ترى غير